ok kon ñu ngi la ci jaajëfal dugg ak yow ci beneen question nga xamante ni lu président de la république Macky sàll annoncé woon la formation nouveau gouvernement nara delloo si poste premier ministre alors yow euh, ci bi nga yëgee nii ci lañ nar a jëm. taxawal gouvernement bu bees rawatina delloo si poste premier ministre te yow it yàlla dogaloon na euh, nekkoon nga ko noo jàngatee xibaar googu noonu ak yow it naka nga gisee. Hmm. Eh, formation gouvernement bu bees boobee nga xamante ni ci lañ jëm ak ki nar jiite maanaam gouvernement bi muy premier ministre bi. Hmm. waaw ban nekkoon naa premier ministre xam naa ne euh, post boo xam ne bi am na solo ci architecture gouvernementale euh, à un moment président ci ni mu defee évaluation am bëggoon xëy na yëf gaaw. supprimé woon na ko waaye indiwaat na ko donc man loolu dama koy rafetlu parce que quand euh, fa ma toogoon def naa ne amoon naa fa njëriñ dafa liggéey donc def naa ne poste boobu am na am na solo dina yombal liggéeyu président mm. surtout que léegi dafay jiite Union africaine euh, war a nekk ci béréb yu bëri wax ci turu Afrique ak yu demee noonu foog mu am premier ministre boo xam ne bi euh, vraiment moo koy wutu bu fi nekkulee moo koy coordonnel équipe gouvernementale bi ak yu ni donc am na solo pour man affaire mbir mi ñëwaat Euh, gouvernement bi ñëw coobareem la parce que constitution euh, moom la dénk mu mën a tànn ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur am premier collaborateur am mooy premier ministre mm-hmm. collaborateur yi ci des ñooy ministre yi euh, dañ ko koy bàyyee mu toog waxtaan nag boppam seet profil yi nga xam ne moom la jàpp ne ñoom la bëgg liggéeyal mm-hmm. képp koo xam ne kii liggéeyoon nga aussi te yàlla def xëy na bokkoo ci équipe bu bees bi Euh, man dama lay encourager parce que nag aussi Sénégal xam nga li fi jafe mooy ñu fal la euh, nga war a dem nit ñi dañu koy def voilà yóbbu ko niveau boo xam ne bii agu fa. ndax ku nekk bu ñu la nommé ministre rek jàppal ne chance bu mag a mag a mag a mag nga am dañ laa tànn ci sa ay na biiri nawle. sas la euh, sas la. xëy na gënoo ci woon a ëpp jàng sax. waaye yow la yàlla defal teraanga jooju boo ci liggéeyee nag voilà ba liggéey woowu ñu ne la waaye léegi nag mën ngaa jox. liggéey bi keneen mu continuer euh, sant yàlla rek nga war a def waaw loolu it entourage bu ministre yi ak seen i njaboot nañ leen jàppale voilà parce que ñaare li ñuy gis mooy euh, voilà nit euh, du ma ne sax wàcc parce que du wàcc voilà nit vraiment delloo dossier yi comme ministre jàll ci leneen nit ñi dañu koy def tiis koo xam ne gii ci man aajowu ko nañ ko jël rek comme voilà mission boo xam ne àgg na xëy na beneen mission yàlla dana la ko indil ndoolu def naa ne bu ñu amee esprit boobu euh, dina gën a yomb ci ñi am responsabilité euh, ba noppi jàll ci leneen man noonu laa ko gisee parce que dund naa ko aussi voilà euh, entourage yi ak njaboot yi nañ ciy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci situation ndax doo ko dundaat ndax doo ko dundaat ndax maanaam dundoon nga ko ndax mun ah, nañ ah, seentu nga nga dundaat ko parce que ça fait dix président Macky Sall ça fait fukki at ndax mën nañ séntu nga dundaat ko comme ah, nañ ko dundee dogal yu mel noonu ak président de la république dellu si ci biir euh, loolu loolu loolu ñaar ñaar ñaar a koy dogal yàlla d'abord mhm. ak ñaareel bi mooy président mooy seet ki nga xam ñi nga xam ne moo ñoom la bëgg a liggéeyal kooku moom rek ko xam moom moo gën a xam profil yi mais ci li ma jàpp profil yi nga xam ne moom la gën a soxla mhm. mooy ñi nga xam ne mën nañu mhm. xarañ nañu ci seen euh, li ñuy def engagé nañ politiquement parce que souvent damay dégg ñu naan technocrate ak politicien loolu moom bekkul fenn ndax ñun ñi lan mooy différence bi amul benn différence parce que ñi nekk ci politique ñun ñii ñëpp dañoo hmm. jàng ba am suñuy diplôme université mais am na ñu ci nekk nag nga baal te it ñoom wàllu compétence souvent dañu leen koy reproché ah, waaw waaw mais mën ngaa jàng te voilà liggéey bañ lay dénk am na am na ñoo xam ne dañuy gis mais ñëpp jàng nañu souvent dañuy wax ne sax poste yi ñu leen di jox est-ce que jàng nañ ko waaw ndax am nañ mérite bi ndax am nañ compétence bi waaw ministre moom euh, mën ngaa nekk euh, ingénieur ñu jox la santé Euh, niveau de responsabilité la di nga da am ay collaborateurs ak ni ñu mm-hmm. mais di nga am un minimum de compétence booy yor. da ngay engagé aussi. parce que man ministre bu ñu la xasee ba nommé rek engagé nga politiquement. foog nga wàcc expliquer liggéey bi nga xam ne moom ngay def expliquer ko population yi. Mm-hmm. saafonteeg ña nga xam ne ñoo ne ci secteur ba yaa xam artisanat la wala éducation. Mm-hmm. déglu leen déglu seen i problème. déglu aussi seeni i suggestion fexe ba ut ci pexe. loolu mooy équipe gouvernementale en fait. loolu nag euh, président moo moo koy tànnal boppam euh, comme match de football rek voilà ni ni bi di amee équipe euh, noonu lay demee doon coobareem la dañ ko koy dañ ko koy bàyyee jàpp nga ni dina doon gouvernement bu néew wala dinañ ko yaatal mu doon gouvernement du d'union nationale séntu ci opposition bi daat cee bokk xaw kooku nag moom awma ci benn réponse bu ma lay jox. loolu mhm. ci analyse du président su defee analyse am ba noppi. Mhm. seet ak expérience gi am ak jaar jaar gi nga am tamit tey xëy na war nga mën a am njortu ci li nga xamante ne moo xam nga ne ci bopp ab président yombul <laughs> président bi moom moo xam euh, parce que équipe ak ki ngay liggéeyal mu ngi mel ni yow say collaborateur sa assistante euh, sa voilà sa manager sa gestionnaire. Euh, yow yaa leen di mën a tànnal sa bopp. voilà kooku moom amul keneen ku la ko mën a tànnal boo yore sa entreprise. donc noonu la demee euh, dañ koy ñaanal yàlla mu am inspiration bu ko jox ay collaborateurs yoo xam ne yii fa mu bëgg a réew mi dina fa àgg. Mhm. loolu lañ ko mën a ñaanal euh, noonu la noonu la tëddee.